dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatit dañu koy dooree ak ñaar fukkeel bi yoon ak juróom-ñeent ñu amal festival de jazz bu Saint-Louis bi la yoon jàpp nañ ko fukki fan ak juróom-ñett jàpp ñaar fukki fan ci weeru juin bi ñu nekk dina am nag ay kàngam yu mag yoo xam ne dinañu bokk ci boobu le festival ñu mun cee lim Awali Vieux Farka Touré groupe Missal Jàmm Jazz Baba Mal ak yenn artistes yoo xam ne ngeen ci invité xew-xew bi nag dina am ndar géej waaye dina am ay yenn xumbute yoo xam ne. dina tax ñu gën a fesal mbàccutu gox ba rajo Sud FM dina leen ko toppal jóge ci loolu wax ci wàccaayu fête de la musique ñu jàpp ko ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin di weer bi ñu nekk xam nga ni ñu ngi koy waagal bu baax fii ci réew Sénégal niki noonu sax comité bi nga xam ne moo yore lépp lu jëm ci wàllu wàccaay bi amal na janoo ak taskatu xibaar yi ngir wax nar la xumbute yi nar a demee ci biir Sénégal gépp ci wàll moom APCS di kuréel gi nga xam ne moo ëmb journaliste culturel yi nekk ci réew Sénégal ñoom it daañu mandargal bés bi ci seen wàll ndax dinañu amal benn waxtaan bu yaatu ngir sargal ba noppi njukkal ki nga xam ne moo di Thione Ballago sekk nekkoon fi leader vocal bu Raam Daan daal di fiy dëddoo ci noonu dañu amal benn conférence ñi koy def nag moo di suñu confrère bi lay di Fadel Lo mi nga xam ne dafa bindoon benn téere dippee woon ko parole de Thione Seck un poète inspiré et prolifique ak professeur Ibrahima Wane di jàngalekat di gëstukat université Cheikh Anta waxtaan boobu boobule jàpp nañ ko gaaw fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru juin te maison de la culture du ta sec ASFEMS di kuréel bi nga xam ne moo ëmb jigéen ñi yëngu ci wàllu musique ñoom it duñu des ginnaaw ci célébrer li nga xam ne moo jëm ci wàllu fête de la musique ñaar fukki fan benn ci weeru juin bi ñu nekk doon nañu sax amal benn janoo ak taskatu xibaar yi ngir wax naka lañu ñoom la ñuy waajalee bés bi ak lan lañ nar a def ci le 21 juin boobule nañ ci ànd ak Josette Kali ginnaaw benn at bu ñu taxawalee ASFEMS di association des femmes musiciennes yu Sénégal ñoo bëgg a wone seen bopp ci édition 2021 bu fête de la musique bile faatu Diop Tamba mooy seen présidente. bés bi bésu jigéen ñi la bésu ñëpp la. ci musique nag wax dëgg yàlla bés bi moom seen bés la ku ci mel ni ajaratu ki nelaam mel ni suñu yaay faatu géwél yaay mahawa kuyaate macha allah bés bi bésu ñëpp la képp koo xamante ni jigéen nga rek bés bi sa bés la ngir mën a waajal bu baax a baax boobee journée ay atelier dinañ ko amal jëm ci ñu tàggat lu bëree bëree si ay jigéen am na ñu guitare basse Alassane Cissé la ñuy jël bu orchestre national du Sénégal moom moo war a def atelier bi am nañu guitare solo Mass Soumaré la ñuy jël am nañu batterie Mangone moom moo war a def batterie bi am nañu kora Baboulaye Sissoko moom moo war a def kora bi am nañu percussion Baye Demba cinq 55 moom moo war a def chant monsieur Adolphe Coly ci seen slogan bii ñu duppee xàccandoo dóorandoo ASFEMS mooy xamle ni bu bés baa ñi war a yéeg woy ci boobee concert ñëpp ay jigéen la ñuy doon te ñu narkaa amal ci ñaar fukki fan ak benn ci weeru juin bii léegi nag dañu dalal ki nga xam ne moom moo di Salif Diédhiou di directeur école nationale des arts moom mile ginnaaw bu ñu ko dénkee kër gi lee xalal na ay yoon yu bees daal di teg ay pexe ngir tàggatu bi gën a mucc ayib niki noonu sax ñu dugalaale ay module yu bees ba jëm ci wàllu entrepreneuriat culturel. Salif Diedhiou maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. yan pexe nga teg nga lal ngir justement mun a suqaliwaat école boobu. jéem a apporter vraiment euh, solution parce que école euh, nationale nekkoon na ci jafe-jafe. Euh, parce que ñu ngi jéem a jox orientation bu bees suñu formation. naka la ñuy orienter suñu formation bi pour mën na leen initier à l'entrepreneuriat culturel. ok voilà parce que loolu yëpp euh, am projet bu pertinant moo hmm. koy andi. moo la mën a may euh, euh, garanti. entrepreneuriat bokk na module bu baax boo xam ne am nañ professeur bu bees bu ñu def formation projet entrepreneuriat. tamit am nañu modul bu méthode de l'innovation boobu laa wax. fii ci Sénégal bëriwul euh, institut wala INVIS yoo xam ni dañuy am module sur euh, les méthodes de l'innovation alors boobu dañu introduire nañu ko ak euh, beneen bi mooy industrie touristique et gestion des sites de patrimoine hmm. moom tamit boobu tamit mu ngi ci moom mën na may suñu élèves yi ñu am beneen perspective xam nga animateurs yi dañu leen former ci administration culturelle. Mhm. mais module yooyu war na leen permettre ñu am perspective euh, bu bu bu yaatu boo xam ni mën nañu def euh, projet touristique euh, guide ak ak tamit création de d'entreprise culturelle. section euh, théâtre bi aussi relancé ngeen ko. théâtre bi waaw. théâtre bi reprendre na mooy promotion bu njëkk boo xam ne depuis la reprise. daaw la jën en deux mille vingt. le pare euh, quatre ans de formation yi def examen de sortie Sorano depuis bu ñu ko defee Sorano. candidat yi dañu gën a bëri parce que nit ñi xam nañu léegi ni formation à comédien yi commencé. alors ndax yéen aussi bàyyi xel ci lu jël former ay comédien ngeen aussi former aussi ay metteurs en scène ndax nee na ñu dafa xaw a manqué ci marché bi. metteur en scène dafa ci marché bi ñu ngi seet naka la ñuy defee formation boobu au niveau de l'école nationale des arts am formation spécifique de mise en scène alors ñu ngi seet naka la ñuy introduire euh, euh, diplôme boobu formation boobu pour mm-hmm. que école de nationale des arts mën a former euh, réellement metteur en scène alors ba léegi ci suqali lépp jëm ci wàllu doxalin école bi yéen a ngi taxawal benn projet ak waa Technopole dëgg la jeudi jeudi buy ñëw jeudi dañuy am workshop pale technopole ENA jéem a euh, apporter technopole technopole tamit euh, mën a apporter ENA pour que élèves yi ñuy former ñu mën a def activité foofu mais activité bo boo xam ni du sonal euh, àll bi hmm. du am impact négatif <coughs> mooy lañu ñu concept bu ñu génn mooy art agri mooy art agriculture ou artistes agricoles. ñoo xam ni dañuy associer art ak agriculture. Hmm. mën na nekk euh, pisciculture apiculture euh, mën na nekk euh, maraîchage yooyu yëpp loolu la ñuy jéem a waxtaan ak technopole. ak tamit promotion touristique des des des des des zones de Dakar. fii la ñu seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. 29e édition du Festival de jazz de Saint-Louis. L'événement est prévu les 18, 19 et 20 juin 2021. Au programme, plusieurs artistes comme Vieux Farka Touré, Awali, le groupe Jam Jazz, Baba Mal entre autres. La radio Sud FM vous fera vivre l'événement. durant ces trois jours de festival. Et puis, nous parlons des préparatifs de l'organisation de la fête de la musique prévue ce 21 juin. Retenez que le comité chargé de l'organisation de la fête de la musique au Sénégal a organisé un point de presse pour informer sur le déroulé de la fête. Justement, retenez que pour la fête de la musique, l'association de la presse culturelle sénégalaise compte rendre un vibrant hommage au lead vocal du Ramdan, Feu Sek, une conférence sur le thème Sek, maître de la parole et de la musique, sera animée par notre confrère Fadello, auteur du livre Parole de John Balagosek, un poète inspiré et prolifique, en compagnie du professeur Ibrahim Wan, enseignant-chercheur en littérature et civilisation africaine au département de lettres modernes de l'Université Charanta Diop musique compte aussi organiser et célébrer à sa manière la journée du 21 juin dédiée à la musique. En prélude à cette journée, l'association a organisé une conférence de presse pour revenir sur le programme de cette organisation, suivant le reportage de Josette Kali. Après un an d'existence, l'ASFEMS, l'association des femmes musiciennes du Sénégal, veut marquer l'édition 2021 de la fête de la musique. Fatou Diop Tamba, présidente de l'association. Cette journée est dédiée à toutes les femmes, surtout aux femmes musiciennes telles que Kinelam, ñoom Afatou Guewel Mawa Kouyaté bref on attend tout le monde. képp la. en prélude à cette journée des ateliers sont organisés en guise de formation pour plusieurs femmes. am nañu guitare basse Alassane Cissé de l'orchestre national du Sénégal la guitare solo avec Mass la batterie avec le professeur Mangone il y aura aussi des apprentissages au kora avec Baboulaye Sissoko Baïdembandir de 5-5 va assurer les cours de percussion et pour le chant, nous serons avec le professeur Adolphe. Avec pour slogan Hachando Dorando, Las FEMS promet une prestation 100% féminine lors de ce premier concert du 21 juin prochain. Et puis nous recevons Salif Diédiou, il est le directeur de l'École nationale des arts. Nous avons eu un entretien avec lui autour de la nouvelle dynamique qu'il entend donner à la formation au niveau de l'école avec de nouveaux modules et une formation en entrepreneuriat culturel pour résoudre le problème d'emploi après la formation. Salif Diédiou, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de l'École nationale des arts. Quelles sont justement les, euh, disons, euh, innovations que vous comptez mettre sur place justement donc pour un peu euh, booster euh, euh, cette école Vous savez, euh, on a trois départements. Une euh, innovation, on en parle puisqu'on a introduit même des modules euh, d'innovation. Ça, beaucoup d'instituts d'école n'ont pas à l'innovation, de l'innovation. C'est les modules qu'on a introduits. On a aussi introduit des modules d'industrie du tourisme et de sites de patrimoine. Créer de nouveaux profils, comme ça, après la formation, ils pourront euh, créer des, des entreprises euh, euh, culturelles pour ne pas trop se focaliser et rester des années à attendre euh, un recrutement à la fonction publique. Alors qu'en est-il pour euh, la section théâtre Alors la, la, section théâtre a également été relancée. Je pense que depuis la reprise, la première promotion de la reprise est sortie l'année dernière. Cette année, on a eu beaucoup plus de candidats euh, pour cette formation. Parce que les gens, je pense, ne se sont pas rendus compte que la, la formation a repris. La sortie, on l'a fait, l'examen de sortie à Sorano, qui a mobilisé euh, un public, qui a fait que beaucoup de gens ayant pris connaissance de la reprise de la formation ont mm. postulé. Donc, on a eu beaucoup de, de candidats euh, cette année pour euh, la formation des, des, comédiens en art dramatique. Est-ce que justement, donc, au-delà de la formation des comédiens, vous formez aussi des La formation des comédiens prend une petite partie de la mise en scène, mais euh, le métier de metteur en scène proprement dit, on est en train de réfléchir euh, comment créer ce Euh, ce, ce, module de formation en, à la mise en scène. On forme réellement des, des en scène au niveau de l'école. Le métier de metteur en scène est une forte demande mhm. et on en train de se concerter pour voir euh, comment introduire euh, cette euh, formation de manière euh, très spécifique mhm. et produire, euh, comme on le dit, des metteurs en scène euh, au Sénégal euh, en, quantité suffisante. justement, dans le cadre de la diversification de vos activités, vous nous disiez tantôt que projet avec euh, Technopole. par rapport à, donc au changement dont on a fait allusion tout à l'heure, cette année, on a pris, la résolution ferme d'orienter beaucoup plus la formation vers l'entrepreneuriat culturel. Ça veut dire que surtout au niveau de l'animation culturelle, euh, avec le, le, conservateur, on est en train de voir comment l'ENA peut participer à la promotion du technopôle. Comment est-ce que l'ENA aussi peut voir dans quelle mesure travailler avec le technopôle pour essayer de reconstituer euh, l'écosystème. On a des artistes qui font un travail Euh, d'art et euh, environnement. Là ok, je vois. Vous y mettre aussi d'autres infrastructures qui peuvent euh, intéresser les visiteurs, se déplacer. Oui. L'ENA va se déplacer jeudi. Il n'y aura pas de cours à l'ENA, mais les cours, ce sera au Technopole parce qu'on va y tenir un workshop. C'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.